asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi noo ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen ndokkeel ci bés bi di leen balu àq di ñaan sunu borom tabaraka wa taala boole nu baal jéggal nu sunu bakkaar nangul nu sunu jàmm ci barke Serigne Touba ni nu ko baaxoo defee ak yéen at mu jot fii ci jumaa yi Touba Daarul Minan tey ñu indi julli korité 2023 ci ndigalul Cheikh Mahamadul Muntaxa Mbakke mi toog a jotaayu Xaadimu Rasul yàlla na sunu borom tabaraka wa taala def mu yàgg koo toogee te mu dolli ko ak wér te wéralal ko ñi ko wër noo ngi leen di nuyu ci turu mu Mudu Abdoulahi Mbakke mi nga xam ne mooy jawriñu liggéey bi ànd ko ak bokki taalibe yi ni mu ko baaxoo defe xam ngeen ne ndigal li mooy saa yu waxtu wi jotee rek sëriñ bi day génn ànd ak bokk yi ak ñim fekk ci jumaa ji ñu ànd joxe farata ji wala wala sunna si mu noppee ni mu ko baaxoo defee ak nun mu tàbbal ci ay kàddu te jii nag suñu boroom dafa dogal sëñ mu Mudu Abdullahi bi mu ñëwee ànd ak mbooloo mi mu àndal eh, ndigal li mu jot ci sëñ bi mooy sëriñ taxa Mbàkke moom sëñ maam Mor la moo jiite ñaari rakk yi bi mu noppee nag sëñ Modou Abdoulaye teg ci ay kàddu allah allah akbar الله الله أكبر سمع الله ربنا الله الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته noo ngi nuyu bokki jullit yëpp yi fi teew leen ndokkeel ci bis bi ci ndokkeel suñu bopp ci ndokkeel bokki jullit yëpp din ci baloo xiitam di ñaan suñu borom bay nu bay nu jéggal ñëpp ci weeru tedd wi nu bàyyi ko di weeru ngëneel di weeru yërmande di weeru njéggal yàlla suñu borom nangul lu ko te yàgg ko fekk yàgg ko teewe suñu borom dinu kàttanal ñu di ko mën a joxe ak di mën a joxe farata yëpp yu nu digal tam dinu fegal lépp lu mu lu mu lu mu lu mu nu bañal eh, sëñ bi daa joxoon ndigal nañu bu ñu si maam jànge xudd bu nopp ñu teg ci kàddu yi soññee ak ak ak ak ak ak fàttali eh, fàttali gëm daanaka fàtt xaju fi ndax weeru day soog a dee rek li nga xam ne moom la suñu borom digle ci weeru koor wi moom la digle ci weer yëpp benn jër yëpp loolu la ci digle eh, nan nan ko doon defee di ci farlu ak di ci xeme lu baax lu baax luñ luñ xam ñu di ko jéem a def lool loolu rek lan war a lan war a wéyal ci weer yi ci des yëpp ngeen tey fonk fonk farata yeeg sunna yeeg ak ngeen ñu ci mën a boole ñu di ko boole ngeen tey sarax yeeg dimbale yeeg dimbalante yeeg lu géeg lépp lu baax lu ne nim ware ci weeru koor niñ ko xamee ci weeru koor lañ ko xamee ci weer yëpp konoon bokk góorgóorlu bu baax a baax ah, te te te te di ci di ci soññ waxtu ñu di ci soññ nga xam ne xam ne ni ni ni nin ko doon nin ko doon jéeme ci ci ci weer wi rekk lan war a lan lan war a wéyal lan war a wéyal rek eh, te ñaan suñu borom dimbalenu dimbalenu nag kàttan na lu ba mën a sax ci ci ndigal faw euh, ci ci ci barke xaadimu rasul sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ baa ngi santaane bu baax a baax ñu ba góorgu ci li nga xam ne moo nu moo nu fee di bàyyi nu fi rek muy muy jaamu yàlla muy muy jaamu yàlla noonu ci bokk góorgóorlu bu baax a baax a baax te te te ñaan itam rek moom moom moom moom mi nu yàlla booleel muy sun kilifa yàgg fi lool rek te wér te yàgg ànd ak moom liggéey bi nga xam ne moom bu fa yàggee ndimbalal jullit ñëpp lay doon yërmande jullit ñëpp lay doon yal na ko suñu borom bàyyi fi suñu kanam mu yàgg fi lool ak noonu te yàgg weer yàgg ko fekkee itam te suñu borom nangul na ko nangul ko bépp jullit itam rek jërë ngeen def asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakaatu loolu mooy kàddu yi bàyyeekoo ci Serigne Modou Abdoulahi moom itam nu ñaanal ko bu baax sunu borom. àggaleel ko yéeneem te te guddal aw fanam dolli ko ak wér ndax itam nag yaakaar yi nga xam ne eh, kilifa yi am nañ ko ci moom ci barab bii ak ni mu ko taxawoo yaakaar la joo xam ne dañu ñaan yàlla mu dëppale ko yéeneem moom itam yéene yi nga xam ne am na ko ci liggéeyal ki ay kilifaam yàlla yàggal ko fi lool te dolli ko ak wér ñu delluwaat di santaat bu baax suñu bokk yi nga xam ne naka jekk noom ñoom ñooy ànd liggéey bi eh, suñu jëwriñ sëñ Modou Dieng asta nga xam ne moo jiite barab bi Baye Fallou Diop noddukat sëriñ Mor Mbay noddukat sëriñ Muntaxa Jaw noddukat ak Babacar Faye ñoom ñëpp ñoo ngi leen di siyaare bu baax di leen ndokkeel bokk nañ ci ñi nga xam ne nekk nañu fii suñu kilifa yi nga xam ne nag mooy jëw li ñun àndal liggéey bi ñu di ci eh, eh, tudd Baye Serigne sëy moom sëñ Muntaxa sëñ Moustapha Dieng Daaru Minan Xasaayit sëñ Mbacke Fall sëñ Muntaxa nuñ fàttaliku bu baax a baax sëriñ Muntaxa Mbay Plâtre nga xam ne noo ko noo daan ànd liggéey bi ci at fan yi nu weesu rek la wàcc ab liggéey noo ngi ñaan ci barke bés bi suñu borom dolli ko yërmande ak njëgal sëñ Abdou Jaxate moom itam bokk ci jëwriñ yi ñoom ñëpp noo ngi leen di sant di leen gërëm di leen jaajëfal di ñaan yàgg ko ànd rek ci ndigalul sëriñ ci barke sëriñ Touba di sant itam bokki presse bi suñu bokk yi nga xam ne ñooy ñooy waa waa Istikhama ak waa Info ak waa Benno FM ak waa Fawsu FM ñoom ñëpp noo ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan ñu teewee ko ay déwén déwén ci barke sëriñ Touba seen mbokkum taalibe Omar Kane Balla Aïssa wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.